mbokk yi noo ngi leen di nuyu fii fii Daaru Rahman ci ndigalul Cheikh Mamadul Habib ibnu Cheikh Abdullah di teeru ganam duma ma ne gan sax waaye waa këram di ay bokkam di sëriñ Habibu moom Cheikh Mamadul Fadil Cheikh Mamadul Habib nag boole nu ak sëriñ Makhtar Mbacke rakkam Euh, fajukaay bi nga xam ne moo fi nekk dafa am ay jumtukaay yoo xam ne dafa dafay wërta ñàkk yoo xam ne soxla nañ ko jumtukaay yooyu nag ni nu xame Touba ca kanam nga xam ne dafay taxaw Touba ak ñi dëkki Touba euh, ci lépp loo xam ne lu ñuy ittewoo la ak di ko soxlawoo euh, di laaj lu ñu xam waaye di ko def fu ñu xam loole moo waral jataay bi tey jii ngir ñu indi bagage yooyee nag eh, mënoon nañu ko indi guddi eh, ñu yeewu gis ko waaye nag dafa di loo xam ne teewe gi nii jataay bi dafay firndeel rek la waxoon te nit bu xasee wax rek la mu wax logique boobu waratu ko wàcc ak it ñuy ñëw ci seenu dëkk boo xam ne ki ko fonde woon muy Cheikh Abdoulahi naka jekk xalaatam lii rek la woon mooy di sukkandiku ci sa bopp di defal sa bopp ngir la seexul Xadim waxoon fa njaareem ci ne na ngeen di defal seen bopp ngir ngeen mën a sañal seen bopp ndax képp ku lay defal faaw mu sañal la ka lay sañal nag yàlla na fekk bu boobaa mu doon ka la war a sañal. doon leen wax rek li nga xam ne moom lañ fa indi tey euh, gannaaw bañ ba mu doonee sàkkuteefu poste de santé bi nga xam ne mooy bu Daaru Rahman. andi nañ fi benn euh, table de bureau boo xam ne mu ngi toll ci cent soixante cinq mille francs benn fauteuil ministre boo xam ne mu ngi toll ci quatre vingt mille pèse bébé mooy li ñuy pesé pesé xale yi mu ngi toll ci quarante mille tension mètre mu ngi toll ci quarante mille armoire boo xam ne quatre vingt mille tamit la jar ay chaise bureau vingt quatre mille thermoflash quarante mille table de consultation cent dix mille table d'accouchement cent quarante mille pèse personne trente cinq mille lit d'observation quarante mille bassin quatre cent mille di moins bassin six mille francs euh, bi gannaaw bi nga xamee tamit ne am jëndal nañ leen benn euh, euh, machine boo xam ne machine écographie la derrière dernier cri ànd ak imprimante laser ñu ngi ko jëndee ci 6 millions et quelque waaye machine bi ku ne xam ne sur commande la waaye fay nañ lépp ba pare commande bi un mois lay def kon xam naa ne fii ak fukki fan ak juróom dina war a yegg si. lépp mu ngi toll ci 7 millions 245 mille francs matériel bi nga xam ne yëpp tey moom la fi Touba ca kanam andi. sëriñ bi Cheikh Mamadou Habib mi ngi feeñal mbégteem di sant yàlla. di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba wante di sant bu baax waajuram bu tedd bi Serigne bi wax na ne yow Cheikh Mamadou Habib yaag mbooloo mi nga xamante ni yenn ànd muy Touba ci kanam mi ngi leen di sant bu baax di rafetlu liggéey bi ngeen di def di ko defal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul te taxawaay boobu ngeen ci taxaw yéen a ngi fa taxawaan yéen a ngi fi taxawaaleel njaboot Serigne Touba gi yëpp ngir lépp dafa tàmbale ci sëriñ Touba dellu ci Serigne Touba yem ci képp mi ngi ñaan suñu borom yéen ju sell jooj ngeen am ngir liggéeyal sëriñ Touba ci fànn yu bari yu wute lu ngeen ci jóg rek sëriñ bi ànd ci yéen ba ngeen am ko na ngeen ko bëgg te fi ngeen gën a dàkk biñ ñu xoolee këyit gi dafa mel ne wérgu yaram gu jëm ci jigéen muy ndey ak doom ndax borom xam-xam yëpp dàkkoo nañ ni réew mu fexe ba sa wérgu yaram dëgër nga teel ko sa bopp rawatina jigéen ak gone réew moomu war naa mën a dox jéego yu gaaw jëm ci kanam te gis nañ li nekk ci matériel ñi ngi ko tàmbalee ci ki nga xamante ni moo war a faj ki war a faj dafa war a am biir bu baax ak toggukaay yu baax ak jumtukaay yu baax pour mën a xam li muy liggéey naka la koy defee ba ci topp gis nañ ne nit bu yegsee ci wàllu faj la nga war a njëkk a def mooy xool tensiyon peese ko xool ay constantam ba xam kii danga ko war a téye wala danga ko war a jàllale ba ci toppit gis nañ ne buñ ko waree téye it war nañ ko tëral ci lal yu baax war koo teg ci condition yu baax ba mën a koo faj ba mu delluwaat ci sagom wante gis nañ ne it ne soxna soosu fi ñëw muy jigéen ji ñëw yàlla suñu borom dogal mu wann lor waras na koo seet ci lal boo xamante lal bu xaw a spécifique la mooy li gynécologique ndax boobu dañ ko liggéey rek ngir ñooñu su demee ba nar koo jaaxal war nañoo ko saytu lu ñuy wax échographie xool ko ba xam lim àndal ci yan condition la nekk su jëree tee ñu tee ko bu jëree jàllale ñu jàllale ko ba ci buñ ko hospitalisé sax jumtukaay yi muy soxla yëpp bu fekkee mënut a tëdd fam jóge fam tëdd lépp fàggu ngeen ko kon maa ngi wax ci contrôle ICP bi kon li nga xam jëm na ci wàllu jigéen ju tollu diggante ak doomam lañ ci war a soxla lépp ngir mën koo faj fàggu ngeen ko indi ko muy liggéey bu am solo ndax lii dafay wone rek ne li ngeen def nii dafa tege ci xam-xam maanaam am na boromi xam-xam yu ne ci ginnaaw yoo xamante ñoo leen ci xelal ba ngeen doxale ko nii loolu nag yéen koy defal sëñ Touba rawatina seen waajuru Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi doon doomi sëñ Touba yoo xamante ni ku fonkoon wér-gi-yaram la daan ci yëngu ba ci sunu jàmbaar ji fi bàyyi ko bu yàggul di sëriñ Cheikh Mbacke borom Daaru Rahman doonoon ko fonkoon wér-gu-yaram